billahi xam ñu yóbbu de waaye xam naa ne bu dakkul moom di nga jis ku xiif ba lekk fi tan ak ki sëriñ man kay man maa la ko wax loolu moom xale yi nag ñoo gën a dëgër bopp toog leen seen peegi ndey yi ni ko waa ji waxoon Cheikhou Gueye mais ba léegi mënuñu ko def waaye baax na mais xam naa ne moom sama njaboot moom kaaraange gi ma ci war a jël jël naa ko ak ki sëriñ yaay jarul wax bismillah waaw papa. Bébé Tooy lii mooy ban xeetu doxin. fay fay dama laa fàtte nuyu sax. Bébé Tooy ma ne lii mooy ban xeetu doxin. ah papa ba ma dénkee si géej gi chaque jour dañ daan nar si biir géej bi moo tax ma taami di doxee nii saa yu ma yeewoo nii laay doxee. moo tax ngay doxee nii Bébé Tooy. ah waaw papa Bébé Tooy kuy sa baay. maa ngi ñaata doom. huit Moodu sama doom la. waaw Omar sama doom la. faatu sama doom la. Bébé Tooy da maa gis may dox di def nii. <laughs> papa maa ngi dem ba ci kanam. may wax yow nga ne yaa ngi dem. Ah, yaa ngi noonu di dem mais waat naa ko si barki Cheikh Issa jenn borom jenn nag lagan du ma la jësi demal nag décret bi moom Macky Sall way wane na ko moom ñuus la aar la mi ngi nag dem leen jaax nekk de bitig ba bàyyi fa dara. boo boo boo tojee leket gi nag awa. sama yoon newu ci nijaay dépense laa jox ma damay dem daa jor ngay sànni leket ba bëgg service laa doon liggéeyee fu nekk nii service yëpp a tëj ndax jàngoro ji coronavirus xaw ma. nijaay jox ma dépense loolu yëpp lijjantiwuma ko laa ñun tuba awa. awa nit day am sutura awa. awa man maa ngi nii doog a yeewu sol sama yére sax sol ma nga nga nga ërtal ma maa ngi dem ñëw su ma ñëwee lijjantil la loolu awa. Eh, dama bëgg balaa ngaa dem dépense bi laa bëgg nga teg ko fii sama loxo damay dem marché awa man salaire laa yaakaar lii feebar bi ñuy wax ci feebar bi ay milliardaires yooyu yooyu yëpp man concerné wu ma awa awa bàyyil ma dem ñëw su ma demee ñëw jox la awa jigéen day am sutura awa man sa borom kër laa ni ma daan def daal laay def maa ngi dem lijjanti ko ñëw bu sottee nga xam ne loolu la bu sottiwul nga xam loolu la yow daal jox ma dépense maa ngi ñëw ah. awa man duma nekk di wax nangoo maa jox dépense te yaa ngi noonu di dem leer na ma boo demee di ko jox jigéen bay bëgg a dee man doom ju déggul daaj laa amul doom ju dégg man damaa bëgg doom ju dégg dangaa wër di dégg bul lijjanti geste yu may def sa geste yi bàyyi kenn du ko lijjanti <laughs> yàlla sa kër tante na bu njaay nee ko ngoon fa laay reer yaa ngi may dégg bugguma sa nday nag sib action dama la cee wóol yóbbul ma ko njëkka la dem na ndax bugguma kii kii war rek koof nii maa ngi sa ginnaaw man nee laay koof waaye sànq suba maa romb fii nii ñu mbëkkante nuyoo ma sax lan moo waral ngay mel noonu xanaa sa baay sama papa la loolu defati sa baay de war maa jox dépense nangu maa jox dépense ne wërëñ nag dem yoon Euh, ok loolu moo tax kon tey jii ma taxaw fee yor sama portable bu ñu mbëkkante noonu ma yor sama portable di manipuler mu taxaw fii di ma puus. waaw may foofu lu nekk la may doyee sax maanaam sama papa yan geste lay def nii ma ñëw ba si moom ma koy wax ay mu a ma ay xaj dama laa bëgg a yónni ay demal sa tante Ndiabou Nabou Ndiaye nga joxal ma ko ay 1000 francs kan mooy Nabou Ndiaye. dama xam koy Nabou Ndiaye ma génn ba sibit ma ne noonu li waruma dem <laughs> sama papa war na ma jox 1000 francs te leer na ma joxu sama yaay dara mu ne jox ma 1000 neen naa ko dem jox kooku 1000 francs nii ndax jox ma ko Ali sa bàyyi moo joxee 1000 francs yi moo jox lii mu ne jox ko ma Njaay lii de nañ naan Samba Alaar joxewu ko ci kër gi de waaye ba mu génnee joxe na ko waaye maa ngi toog fii di ko xaar ba mu fekk ma fi waaye man nag lu ma jaaxal mooy dafa nayam suñu diggante maa moom kase lu laa bëgg mu ngi koy yëg waaye doom na sa xol sedd ba sa bàyyi fekk ma fi yow noppi rek waaye man de ma fi fekkee ba huit jat jot du ma tëjji bunt bi. waa bébé Nabou. waa kooku moom. ah bébé Nabou boobu bu ko di laajtee di waay. ay ah xam nga ni man la. ah nijaay la maa la raw foofu. sant yàlla bu baax bu am jàmm bu baax a baax a baax waa nii nga def ah bébé bébé bébé bébé génnal ma xool la oh bébé <laughs> xanaa xamoo ni yow luy faj oh. ko xaw ma corona virus xaw ma billaahi mi ngi ci yow oh mbaa xadi ñëw na fi nga ne gisuma ko. xëy jox naa ko xaalis ni ko dama joxal ma sa tante Nabu Ndiaye nee ko fa laa yeesee. ah Ndiaye de siyaar gisuma ko ma def siyaar mais Ndiaye yow nag tey da ngaa guddi nag moom teel a ñëw nag. na lan. ah nga ñu làng ñu jàkkaarloo. moo tax ma ñëw heure bi ban heure nga yor. ah 18 heures de jot na. 18 heures jot na. nañ dugg ci biir. Ah. mu gaaw bëgguma dara yomb. mbaadu baax na si woon ñu profité woon. man lii laay wër <laughs> billaahi lii laay wër. tey rek. Eh, nijaay guddee nga de 20 heures lee mu jot de moins garaawul. man yow yow yow yow loo may xalaatal nii couvre-feu bi. ah dama bañ gars yi balaa rek tey nag ma nettali la en 88. Ah. man ak sëñ ab du àndoon. ah loolu moo waaye ñoom ñemewu ñoo génn. Ah, man seul. Ah. maay génn di leen affronter di dévier bal yi. ah nijaay yow xanaa ancien ma doon ma woon ancien combattant waaye damaa doonoon jàmbaar ci sama askan man. waaw ah nijaay na kontaan naa ma gën laa bëgg. ah nijaay tamit lan la loo triste nii. maa xam ne fi nga ma téye nii rek. li ngay def sama nopp nii rek fi nga ma ah. téye. 37 ans de mariage kenn musuma koo def. ah nijaay dama bëgg na moo tax ma lay defaral nga jooy di kii nag. yëg ci sa tànk tuuti nga dallu tuuti. yëgal lii. nijaay nag boo jooy tamit ah boo jooy man lu def. billaahi jooy ma. dafa nii rek ma bësal sa tànk xam naa ko dangaa sonn coono bi. yii mënum kaa géej am sa kër xam naa. Ah, dara sa seega sa loxo bi li muy joxe. Ah. moo moo garaaw. Ah, billaahi loxo ji. li muy joxe moo garaaw. xoolal lii rek. xam nga ne kii nga xam dafa agressif comme comme segg gu dof. billaahi. xaañ xaañ la ma defagul xaañ. jigéen da ngay sa boor. xaañ la ma defagul. xaañ. yow nopp yi fii àjjana fii. baax na nag. àjjana ngay dund bu soobee yàlla. baax na xam nga man sax. balaa may gën a mën a dund dund àndi nga. Ah. na dama fii ñëwaat. ah man la yaay nga fanaan moom. yii ëpp naa def ëpp naa def ëpp naa def. laa ilaaha illallah. ah nijaay fooy jëm. ah déet du loolu xam nga Macky Sall daa ne restez chez vous. Ah. te man protéger wu seen ndey sax waaye samay doom. ah loolu dañoo mën a dox. foog ma dem iir leen aar leen ndax ñu mën a toog ah, waaw mais bu am benn xel ñaane dama ragal alkaati yi si biti de di nga su ma ñëwaatee nga di nga kontaan baax na ah, damay ñëwaat billaahi damay ñëwaat <laughs> ah, fi may téye nii rek a garaaw nag baax rek maa ngi ñëwaat damay ñëwaat yow da ngaa gëmul li ma la wax nag. ah am na yaa ne bul ne te ngaa dem. du maa ngay dem. ay liif de laay bañ a def la ko. liif ah nijaay dem nii. maa ngi dem maa ngi moom kontaanu moom moom waroon ngaa a toog ci kanam. maa ngi ñëw ok. xam naa ne mu tol nii maa ngay dem de waaye yàlla rek may dimbali de. daa mel na nag ñëw nañ. ñëw nañ de sama bàkkoo geeg sama kii yëpp tay ma dee amoon naa léem waaye bu ma sama maam Moussa na jox su ma mëkk kaa waaw. ñeenti yoon su ma mëkk kaakaa sukaanaa su ma mëkk kaakaa sukaanaa su ma mëkk kaakaa sukaanaa sukaanaa gën ji liif fa xiir li ma faral di wax sama doom yi aar la ñuus la waaye fu mu nekk nii dina dal seen baay de aar la ñuus la bismillah lii ñi de ay liifa ki xiir rek lu nekk lañ yor waaye billaahi dinaa dem dem de dinaa ko def aw naar sawaay sawaay dafa naan sawaay <laughs>